ko waxtaan bi. merci beaucoup Khady Colonel comme ni ko annoncé ce matin tey chef andi ñu li nga xam ne mooy salade niçoise euh, yaakaar naa ni balaa ñu gën a xuus ci élément bi balaa ñu gën a xuus ci waxtaan bi Charles daf ñuy dégtal élément bi mais man euh, tey Khady Colonel. Mhm. tey cours bi daf ma gën a neex na dafa gën a passionnant yamul rek ci li nga xam ne moom mooy présenté ñu suñu plat daf ci boole ak euh, benn jàngale boo xam ne macha allah bëgg naa la ci kanam ñu di koy partagé ak téléspectateurs yi balaa loolu yëpp ànd ak René mu daal ñuy dégtal élément bi. ngi na biki indépendance bi ak ñi di yëngu doomi réew mi ñoo ko yoon nañ ko naw te di ko bégi may fas yéene tey delloo njukkal delloo njukkal ñi xeex indépendance ba ñu am ko tey lii dafa neex lii dafa neex lii dafa neex sa bopp sabah waa benn yoon merci beaucoup à René Charles Fall alors chef gis nañu élément bi ñoo ko seetaanandoo euh, bëgg naa nag balaa ñuy euh, gën xuus ci li nga xam moom ñu andi tey nga wax ñu ban genre entrée nga ñu andi. balaa ñuy gën a xuus kay yow di ñu wax ko goût bi aussi. <laughs> neexati na rek laa wax. <laughs> comme chaque jour mu neex defati nga sama mënin. Ah, waaw man maa leen fi nekkal bu ma lekkee dafa mel ni yéen ñi fi toog ñëpp <laughs> la ci sunu biir yëpp benn laa. mësul doon benn waxal chef mësul gis naa ni entrée nekk na ñetti euh, façon wu entrée am na entrée froide am na chaude am na aussi li nga xam ne mooy potage bëgg naa nga wax tey nag ban entrée nga ñu waaw tey li leen indil euh, entre salade la salade yi nag bari nay façon am na ay salades yoo xam ne ay salades mixtes lañ ay salades composées euh, salade bi ñu indi tey. origine am dëgg dëgg dëgg comme Nice la jógee bu njëkk euh, ñu ngi ko doon composé anchois euh, tomate ak euh, huile d'olive kese mhm. loolu moo nekkoon salade niçoise mais léegi dañ ciy dugal yeneen ingrédients. modernisé voilà dañ ko gën a modernisé. Mhm. comme ñun suñu référence su formation bi Michel Vincent Morel la moom moo ñu joxe yenn composition yi mais am na ñeneen ñoo xam ne ni dañ ci yokk ay. Euh, artichaut ñenn ñi yokk ci ay maïs ñeneen ñi yokk ci ay oignon oignon rosé yooyu daal mm. waaye ñun suñu recette originale bi ñuy jël pomme de terre la après tomate haricot vert poivron ton à l'huile euh, ñu décorer ko ak salade laitue mën nañ ci boole trévis wala ñu boole ci feuille de chêne ñu boole ci œuf après ñu defaral ko benn vinaigrette boo xam ne ni à dominante euh, huile d'huile d'olive vingt centilitres d'huile d'olive huit centilitres de euh, de vinaigre ñu yokk ci sel ak poivre moom la ñuy sotti kaw salade bi après ñu envoyé ko mais dañu ciy def benn finition boo xam ne ñeenti herbe lañ ciy boole basilic ak euh, persil ñu yokk ci cerfeuil ak estragon yooyu dañ koy haché mélangé leen au moment de l'envoi ñu saupoudré ko persil et kii yooyu herbe yooyu mhm. soo sotti vinaigrette envoyé chef balaa ñuy dugg ci li nga xam ne mooy préparation bi euh, gis nañu ingrédients yi nga xam ne moom ko daal di composé nekk na plat boo xam ne c'est très facile à faire 30 minutes nga ko daal def donc bëgg naa nga may wax euh, ingrédients yi benn bu ci nekk ferñeent yi nekk ci moom. voilà ñu commencé ko pomme de terre bi nga xam ne mooy euh, élément de base bi njëkk bi boo jëlee 400 grammes yi da koy baxal pendant 10 minutes. mais eh, pomme de terre en robe des champs nga koy def ba pare ma xolli ko yelandi ko dagg ko en quartier. pomme de terre en. en robe champs. ni mu jógee ci tool bi rek ah, waaw ni mu jógee ci tool bi rek noonu nga koy raxas ba mu set éponger ko ba mu rafet. nga soog ko baxal boo ko baxalee pendant dix minutes nga piqué ko ak benn aiguille. bu fekkee résisté wul nga xam ne ni ñor na. bu fekkee résisté na bi léegi nga continuer cuisson bi moom ngay xolli. Euh, da nga koy njëkk raxas rafraîchir ko nga xolli ko nga diviser ko en quartier pomme de terre nekk loo xam ne ni bëri na am na gluten te tamit euh, bëri na ay euh, njariñ ci boo ko lekkee cru wala nga lekk ko cuite ça mhm. dépend ci problème yi nga am boo amee ay inflammation intestinale bon bu fekkee ne am nga problème mu stomatite yooyu yëpp tamit ngay am ay courbature di dugg ci ay crise yooyu yëpp mën nga ko naan suba teel wala nga togg ko en purée nga naan ko. day suudewaat ay butit yu bënn ay intestin ndax mën nga am ay euh, staphylocoque wala salmonellose yooyu yëpp euh, day provoquer des diarrhées sanguinolentes avec des fragments d'intestin mm-hmm. yooyu yëpp ay danger la kon nag boo fekkee ne yaa ngi koy lekk dinay calmer mais boo delloowaat ci li nga xam ne nii moom préférence boo koy lekk pomme de terre bi comme ni nga waxee purée lañ ci gën a préféré wala ak euh, saaf beeg yëpp même effet lay def. waaw ça dépend ci problème mu santé bi nga am bu fekkee ne tey nii da ngay am ay courbature yoo xam ne ni ay inflammation moo ko waral ci intestin euh, yooyu noonu da ngay jël euh, cru le matin mun nga ko def jus mm-hmm. pomme de terre crue mais bul ci exagérer ndax mun na indi ay complication mm-hmm. mun na jur yeneen xeetu jàngaro fekkee ne nag da ngay day jékki-jékki di jam yenn saa yi da ngay jékki-jékki mel dañ lay jam ci biir nii muy euh, métti. Mhm. mën nga ko def su forme de purée. mën nga ko def tamit su forme de potage comme ay potage parmentier ay potage julienne d'Arblay yooyu yëpp dina lay aider ndax digestion bi dafay gaaw ne traverser butit yi rapidement. Mhm. aussi dafay am ay soins yu mu ciy def ci biir. d'accord ah, pomme de terre boobu boo ci jógee nga dem ci tomate mais baax na nag pour nga koy. Euh, xolli der bi ndax der bi ñi am euh, ay euh, intestin yu fragile. Euh, ban la pomme de terre bi wala tomate bi. pomme de terre bi waaw même tomate bi aussi pot bi loolu tax ñu koy dindi wala ñu broyer ko ba pare soog koo passer au jus. Mm-hmm. ba soog a utiliser mais tomate tomate fraîche bi ak li nga xam ne mooy poivron bi da ngeen ko def ci ndox mu tàng donc loolu ban njariñ lay am. voilà loolu c'est cloquer la peau des poivrons pour enlever la membrane qui l'entoure mbuus mais man dama doon gis poivron noonu lañ ko daan daggee sans pour autant ñu génnee bi. waaw day dangereux tuuti nag bu fekkee ne poivron bu dëgër bi la surtout am euh, benn peau bu xaw a lis bi der bi da ko war a génne. Mhm. bi ci kaw pour génne ko nag bëri na ay méthode mun nga taal four ba mu tàng nga teg ko ci plateau four bi day dem bi day cloqué léegi da ngay seet mbuus bi met euh, dindi ko. aussi am na beneen membrane bu nekk ci biir bu weex. boobu tamit même efe lay def loo tax yooyu da nga leen war a bu baax boo ñëwee rek dagg ñaari bopp yi. xar ko ci digg bi après nga génne membrane bi ak graine yi ndax yooyu yëpp day euh, causer appendicite tamit. mais ñun fii dama gis ni bu ñu togg suñu kër yi graine bi dañ koy daal di toggaale. parce que dañ naan waaw mooy ci lay ëpp saveur mooy gën a saf. mais dafa mel ni sànq maa ngi lay dégg nga expliquer sa élèves yi que ne ñu lekkaale ko c'est très dangereux. waaw c'est dangereux ndax des fois boo ko éliminer nga dégg kenn ne jox ma ko ma rosé ko wala ma def ko ci sama ceeb bi wala c'est dangereux ndax bu fekkee da nga am organisme sensible yaa ngi koy créer ay problèmes. bu fekkee ne graines yi daj buloo ko ba mu mokk ba nga xam ne day jàll day dugg ci poche appendice bi te mën nga dem bañ defal intervention. Mm-hmm. sànq maa ngi dégg sax nga naan euh, mën na sax jot jox nit li nga xam ne mooy mauvaise haleine. voilà ndax bu fekkee ne da am problème mu ay intestin toujours boo waxee rek nit ki mun na taf gémmiñam. Mm-hmm. loo tax euh, yi ci def ay finition yooyu ay basilic ay estragon cerfeuil yooyu ak ay persil yooyu yëpp xeetu yu baax la yoo xam ne dafa am ay ferñeent yoo xam ne mm-hmm. dañuy faj ci biir. lu tax ñu koy def finition aussi. nga mhm. koy jël def ci ay euh, oignon yoo dagg ay bracelet yu sew tamit nga jaxase wala ko ci biir comme salade crudité variée bi ñu fi defoon tamit yooyu finition bi def ciy bokk échalote oignon ak herbe yi yooyu yëpp ngay haché-ndoo sotti ko mhm. ci kaw. moo tax finition bi def ciy baax trop. Mhm. buñ ñu li nga xam ne mooy haricot vert euh, haricot vert yan vitamine la am. haricot vert na trop euh, am na fer am na vitamine. C am na B B12 am na tamit euh, euh, yeneen xeetu yoo xam ne ni vitamines yi am ndox yi nga xam ne ni day dundal yaram yooyu yëpp ñu ngi ci biir euh, ay haricots verts te haricots mun na remplacer yàpp tamit bu fekkee loo lekk yàpp wala ñu tere la viande bu rouge 100 grammes yàpp 400 grammes haricots verts daf koy remplacer. baax na pour baxal tas ko wala bëri na ay recettes yoo ko mun a accommoder pour mën a remplacer. Mhm. te dafa riche en fer damay dégg aussi la plupart dañ naan haricot vert ñi nga xam ne dañuy régime dañ koy faral di soxla euh, ban njëriñ la am ci ñi nga xam ne dañuy régime voilà ndax amul ay euh, produits yu graw yoo xam ne ni mën na la jox obésité wala déedéet day entretenir sa peau dina tax doo teel a màgget si euh, dina remplacer ay nutriments yu bëri ay macronutriments ak des micronutriments mais macronutriments daf ci xaw a faible mais bëri na ay euh, protéines ay protéines am na tamit euh, ay euh, micronutriments. ci kaw sànq maa ngi maa ngi koy maa ngi ci ci livre bi nga xam ne moom ngeen di toggee maa ngi koy lire sànq que ñu bind ni haricot mën na prévenir li nga xam ne mooy cancer donc boo koy faral di lekk tout le temps mën nga bañ a am li nga xam ne feebaru cancer. effectivement comme les légumes et les légumineuses yooyu yëpp yi ci gën a bëri même ci poivron bi daf ci bëri sax. poivron bi mun na la préveniral yu mel noonu tomate bi mun na la ci préveniral en même temps euh, haricot vert bi ñetti éléments yooyu boo xoolee ñoom ñoo nekk élément de base bu salade niçoise mm. donc mu nekk plat boo xam ne ni nit ki baax na ci lool bu fekkee ne mun ngay varier say euh, alimentation surtout guddi gi nga koy lekk loolu tamit euh, dina la jàppale nga mun a teel a digérer nga def nelaw bu normal. Mm-hmm. sans nga am ay problème ci guddi gi. Mm-hmm. <laughs> coach. Eh, chef eh, Fatou Mbacke namm naa naa la chef plat bii nga xam ne moom mooy salade eh, niçoise niçoise est-ce que kuy régime mën na ko lekk vu que dafa am pomme de terre. waaw mun nga éliminer pomme de terre bi nga remplacer ko beneen élément wala nga def ci benn pomme de terre bu ndaw rek à peu près ay cinquante grammes tamit dina baax. mais chef euh, li nga xam ne mooy thon bi est-ce que élément de base la mun nga ko éliminer pour ñi nga xam ne duñu lekk thon aussi. waaw élément de la ndax euh, bëgguñu ton mais soo baxalee jën. bien sûr mën nga ko def mais voilà. comme ton élément de base la bu fekkee ne yow dañ ko allergique wala bëgguloo ko wala guwam neexu la tamit mën nga ko remplacer ay beneen produit marin boo xam ne ni mën na jóge ci hareng mën na jóge ci euh, saumon walla lu neexee nga def crevette pourquoi pas. comme euh, nit ñi dañu jël benn euh, recette de base yokk ci yeneen élément tudde ko même nom bi même nom ama façon wala revisité <laughs> il est temps au lieu toujours ñu jël exemple ci comment vous avez François Moron jël référence voilà non Morel Morel donc est-ce que vous pouvez en fait dans l'avenir bëgg nga bind livre pour que ñi fi nekk jël référence ci yow et pas toujours ci ñoom avec nos légumes et avec nos effectivement ndax moom ci boppam dafa jël base ci euh, Planche et Sylvestre ñoom ñoo ko njëkk a bindalee. Mhm. moom mu jël leen modifier leen changer ci yeneen données. Mhm. pourquoi pas man tamit ma jël ci moom comme ci moom laa jànge woon ñëw di jàngale li mu. voilà yokk ci yeneen wala ma génneel sama yësu bopp ak les produits de terroir. pourquoi pas. d'ailleurs commencé naa ci ak les produits sénégalais consommons local. xam naa lu yàgg dina génn. incha allah chef ñu nekk ci li nga xam ne mooy nawet donc ku ne nawet dina wax li nga xam ne mooy lekk bu baax yow selon yow yan légumes la ñu war a gën a faral di préférer di ko lekk ci nawet bi. consommons les produits de saison sans distinction saison bu ñëw ak ay légumes am na lu muy bàyyi ci sa yaram. toujours mhm. bu fekkee ne par les mêmes systèmes de conservation et de transport mën nga cee conserver mën ngaa denc hors saison sax mën nga ko utiliser. Mhm. mais dinaa ci gën a euh, conseiller les produits yoo xam ne ni surtout les crudités comme euh, li ñuy jiw fii ci suñu réew mi ay salade ay tomate ay euh, pomme de terre ay carotte surtout carotte carotte mën nga cee wax fii ba émission bi jeex te doo ci pare mhm. boo ci jël d'ailleurs surtout les antioxydants ak ay avocat yooyu yëpp ñu koy voilà daal ñu ci bàyyi xel bu baax. mais malheureusement fii suñu ay mode de cuisson ci lu ci ëpp au lieu mu mu gën a génne ferñeent yi malheureusement. da koy rey waaw ndax togg bu ëpp tamit mm. dafay rey ay ferñeent yu bari yoo xam ne mm. doon na jëriñ sa jaram waaw doon na gën nag nga def ko ay crédité. Mm-hmm. mais am na ci yoo xam ne foog nga togg bu ñor bu fekkee ne. haricot la par exemple mun na mot ay 10 minutes. mais chef haricot koy toggee nga koy toggee ba du ñuul. Euh, c'est-à-dire pour coloration bi changer. waaw pour chlorophylle bi dañ. toujours boo xoolee ci recettes yi ñuy def dañ koy mujje yokk ci biir bu fekkee yaa ngi def euh, navrame printanier da xaar ba mu jeex nga soog cee sotti ak petit pois bi ndax bañ a perdre coloration mais boo ko defee ci sauce ni bàyyi ko day dem day ternir coloration bi kon euh, baax na ci nga togg ko ay 10 minutes nga rafraîchir ko nga égoutté ko rafraîchir ko nga xaar ba au dernier nga dressé wala ci li ngay préparé mais boo bàyyi ci tàngaay boobu da koy yàq. chlorophylle bi tam baax na ci yaram. am na bu baax a bu ma suulee dafa mel ah. a def la dernière <laughs> la bu may demaat dama bëgg euh, ñu ànd ñun ñëpp. parce que yaakaar naa ni xool dégustation bi wala xool li ñu koy préparé neex na mais nga dem fekk chef. fi muy toggee ak li muy expliqué. Euh, c'est important parce que man tey fu dëgg neex yàlla jàng naa fa lu bari te désormais sax ma léegi ci élèves yi laa bokk waaw parce que damay <laughs> waaw maa ngi ci élèves yi daal <laughs> xamoon gis nga des fois sax élèves maa leen di wax ni ñuy def <laughs> maanaam chef bu fi newul maa koy remplacer. Eh, j'imagine euh, tel passe ba fourchette tel passe ma cuillère passe ma couteau. non dama leen di wax nii lañ koy daggee affaire booy booy teg nii ak lii ngay njëkk def man yooyu laa fa nekkee quand même. en ah, chef faudra voir pour y